ki fi nekkoon jiitu réewum Amérique di Barack Obama doon na wax ne ay institution yu dëgër moo war a am ci jamono ji mu ñëwee Afrique Afrique nag tey des ba tey di wax ci waxum institution yi ñu koy posé fii ci Sénégal itamit waaye lan mooy institution maanaam kuréel yi nga xamante ne nguur gi daf ko fi teg ngir mu jëriñ askan bi lu ci mel ne ay assemblée nationale lu ci mel ne ay conseil économique social ak yeneen ak kuréel yi nga xamante ne day liggéey ci wàllum yoon lan mooy dëgëral institution ak lan mooy tax institution yi duñu am doole ban lien moo am ci institution bu dëgër ak autorité politique ay laaj yu bëri nag moom mooy jub bu ñuy wax ci wàllum institution ndax institution bu dëgër dañu koy natt ci ni mu mun tontoo bëgg-bëgg askan bi loolu nag lu ñu war tontu waaw la ndax institution yi yi nga xam ne maanaam nguur gi dañ ko fi teg ngir ñu jëriñ askan bi bu ñu jëriñatul askan bi institution boobu dafay ñàkk njëriñam ndax askan bi kese moo ko tax a jóg loolu mooy mission bu njëkk waaye bu ñu xoolee ci expérience wàllum gouvernance yi ñu am gis nañ ne institution yi li tax ñu leen di salfaañe askan yu bëri nag ñu gis ne ñoom service public li si doon xaar jotuñu ko ci loolee sax ñu yàgg di ko jooy waaye askan bi li ñu gëm moo dina institution yi indilu leen benn kaaraange ndax ci wàllum caada ci wàllum koom-koom ci wàllum justice sociale loole yëpp dafa des bu ñuy xool ci taxawaayu institution yi waaye nag ngir génn ci lu nu mel ba institution yi kuréel yi nga xam ne dafa bànkaasoo ci nguur gi ci yi gën a kawe yiñ fi teg ñu mën a jëriñ askan bi faw nag acteurs politiques yi ak acteurs société bi ñu mën a bokk am dégg-dégg ci mission yi nga xam ne moom la ñu war a jébbal institution yi.